duñ jaase mu ma koy jàngaltal ci nu mu hmm. gën a mucce ayib waaye nag ma fàttali leen ca conseil constitutionnel moom mbir yaa ngi wéy hmm. ndaxte ndayu mbili gii ñuy waxtaanee di Ousmane ko moom suba incha allah ah, dina jaar ca foofee di conseil constitutionnel ngir lan ñu mën a xam ndax ay ah, parrainage am dinañ ko ah, dina baaxam déet waaye ci vérification parrainage la ñu toll ñoom waa conseil constitutionnel donc loolu benn la parmi huit autres yoo xamante ne ni étape yu candidat bi war a mën a jaar euh, pour mën a nekk ci list définitive bi ñoom wax conseil constitutionnel di dressé euh, ngir élection présidentielle yi buñ ca noppee nag ñu xam ñee dem ca campagne am déet waaye tamit ay recours dina ca tàbbeek yooyu yëpp waaye laataa ñu yegg foofu daal ñu jàpp ne candidat yu bëri ah ñii jàll nañu ñii jàlluñu ña ca njëkk Déthié Fall Cheikh Tidiane Dieye ah Boubacar Camara euh, ku mel ni Anta Babacar Ngom Daouda Ndiaye Habib Sy ah Khalifa Ababacar Sall Euh, kii di Amadou Ba ñooñu jàppagum dañu ne jàllagum nañ ah ñi ci des nag war nañu xoolaat seen i doublon interne yi ñuy wax ak externe yi ngir mën a euh, suñ ko matalee ñoom itam jàllaat ci list boobu noonu léegi nag suñ paree nag ñu dem ci nag xool euh, caytuwaat mooy ni ma ko waxee yeneen huit état bi ñu war a franchir ndax dinañu matal seen candidature ngir bokk ci élection yi doublon inter interne yi ci fàttali mooy c'est quand sur la liste d'un candidat figure un nom plusieurs fois donc su fekkee loolu dafa am nag ci la candidat bi nekkee dans l'impossibilité def régula régulariser mbir yi waaye su fekkee doublon externe yi la foofu mooy c'est quand sur la liste du candidat figure un nom véritablement qui figure en même temps sur la liste d'un autre candidat euh, foofu nag candidat bi day am ñaari fan ngir régulariser sa situation loolu moo tax yooyu ngeen di dégg ci biir affaire yi waaye ci phase vérification lañ nekk ak contrôle suñ ci paree donc candidat yi ñu xam ñan ñooy bokk ci jongante yi defe naa ne leer na nañ ah jëwriñ Ndiasse waaw leer na nañu de waroon nañ la waroon nañ la kii nga no candidat présidentiel bi nga leen expliquer situation bi nu muy demee avant ñuy bëri nañ ci nekk sax ñoom ñi ci nekk sax ñu ñu bëri xamuñu il il il arrive des fois ñu ñu woote sax di laajte donc c'est compliqué euh, kii nee na ma bonsoir bonsoir messieurs ñu ñaar lay waxal ici en France on n'a pas encore reçu euh, les cartes d'identité merci et bonne soirée fii Sénégal sax am na nañu reçu jotu seen carte d'identité gu baax yow bi nekk France la la xaw ma nan comment maa ngi leen nuyu baax baax waa France yëpp maa ngi leen nuyu waaye ni ngeen ko jàppee ci France am na ñu nekk fii ci réew mi sax jotuñu seen carte loolu moom defe naa ne boo xamee sax muy <laughs> ah kii ne j'aimerais savoir la réaction de Diorine Diassé sur les tris députés de PASTEF donnés à Habib Sy euh, au lieu de Diomaye donc loolu loolu loolu loolu Diorine Diassé nee na bon ah, ah, par respect bàyyi ma bàyyi la nga tontu nee na bëgg na xam yow sa xalaat par rapport ak euh, Diorine nag looy wax na ko xam de. <laughs> non parce que man li moom mooy li ma la wax sànq pourtant boros naa ko Saliou depuis France boros naa ko ci ba boros naa ko ci ba may wax nee naa est-ce que du ñoom dañu woolu woon seen parrainage comprendre nga woolu nañ seen parrainage moo tax ñu jël euh, pour euh, pour def stratégie mm-hmm. nga xamante ni dañuy dem ak trois candidats mm-hmm. dañuy dem ak Sonko ak Bassirou yi ak euh, ak Habib sans les alliés quoi. sans compter les alliés nga xamante ne dañ koy. assuré tu vois parce que Habib si au moins moom nee na bu bu ñu valider kii wu Sonko moom day démissionné. day retiré wu ci carte gi day retiré wu déjà il est affidable quoi. Mm-hmm. tu vois donc euh, un de trois ça veut dire que ni mën nañ basé w ne un des trois. Euh, euh, ñoom vraiment mën nañ ci basé wu pour euh, pour accéder ci seen objectif. kii moo tax laajaat na la nee na Diori Ndiaye pourquoi Idy n'a pas réussi au premier tour. <laughs> c'est quoi le problème il n'est plus euh, chef de l'opposition non Idy moom nu mu tuddati rek euh, nu mu tuddati xam nga borom yi pexe <laughs> borom pexe. comme ah, non Idy di ko di dal moo ko teg boppam. Idy li ko dal moo ko teg boppam. Hmm. gis nga peuple bi boo ko waree c'est fini ah peuple bi. Hmm. non peuple bi moom boo ko waree c'est fini. dafa waroon peuple moom it. ah oui dafa war peuple bi. élection naka la ñuy naka lañuy ñuy ak yow élection dem ba nga jël deuxième nga jënd problème Covid bi ñoo nga ne maa ngi doon wax ak sama Macky Sall depuis combien de mois. Hmm. <laughs> c'est quoi ça. Hmm. loolu la. et puis di ñu teg xel quoi bu ñu waxee nga jël say aya alxuraan interprété ko nu mu la neexee ah c'est du n'importe quoi ko moo ko teg boppam. idi ah oui. mooy élection yi passé ba ba mu xoolee situation bi rek mooy élection député yi passé ba mu xoolee situation bi rek la waroon démissionné bàyyi xam ni élection yi passé wane na lu bari ah. d'accord. oui donc eh Idy moom il fait partie du passé ah pour man. alors kii li may laaj mu ne ma non loo ngeen xalaat ci mooy ñu nekkul ci fichier ba ba wax lañ ko sànq parce que déjà euh, euh, euh, suñ sukkandikoo ci Amadou Ba qui est d'ailleurs le mandataire de Bassirou Diomaye Faye moom nee na dañ leen a jox doublon yu bëri ñoom waa Pastef <laughs> ci candidature Bassirou Diomaye Faye moo tax mu ne ñoom dañoo dañoo sax tiit biñ ne leen. Ah, douze mille électeurs non inscrits sur le fichier électoral. kon ñoom cela veut dire que amuñu amuñu amuñu amuñu amuñu fichier bi. fii kay kenn amul fichier bi eh, rax ci doole mu ne le conseil constitutionnel. Mhm. Ah, dafa war a investiguer auprès de la DAF parce que ñoom mënuñu comprendre une personne avec la mention électeur se retrouve hors du fichier donc loolu kay ñun ñi sax mënuñu ko comprendre quoi su su si c'est avéré ça moom kenn mënu ko comprendre quoi mooy man mi mën naa dem. Eh, ci privé sa droit quoi. bureau de vote ba ñu ne ma bokkoo ci ci ci ci ci fii nii nekkoo fi. te cela veut dire que ñun ñëpp ñu woon defaat lépp ñu. yeesal bëri nañu xaar jour élection yi xëy suba sangu ba sangu ba seet soo yëri ne dem par dem ñu la la nekkoo ci fichier bi. fii kay ku ñu génn ci fichier bi waa ju baax yàqu nga. di neen nu ñuy def ba dugalaat leen ku ñu génn ci fichier bi yàqu nga. <laughs> mu ngi noonu Sénégal ah, en tout Bisantin euh, moo ma doon jox euh, les dernières infos au niveau fi nga xam te ne ni parce que man ci li ma jot mooy euh, plaidoirie yu maître El Hadj Diouf xam naa peut nag ndax dañ leen tere ñu yor ay yenn ci ay bagages ngir mun ñoo jox les infos mais maître El Hadj Diouf moom moo mujjee woon kii di wax naan ay s'il ne paye pas ah pas les les loolu lan moo ci yoonam s'il ne paye moom lan moo ci yoonam moom avocat la rek xanaa bu Ousmane Sonko di la moom avocat la. Eh, moom moom du yàbbi doomu jàmbur bi. <laughs> mais mais mais tey jii 4 janvier on parle de ci la Pastef am 10 ans. 4 hmm? janvier. ci la. Pastef am 10 10 ans. 4 hmm. janvier 2014. Euh, lañ ko lañ ko créé woon quoi. waaw ci lañ ko créé 4 janvier 2024 donc ci la am 10 ans. donc euh, tey ñu leen ñoom ñu doon feete seen donte ne ñu ngi leen di wax ne leen ex Pastef la ndax nee nañ dañ leen a tas. ci ci gàttal selon ñenn ñi bëgg ñu yoon tamit waa d'accord on est obligé de faire comme ni ko gars yi bëggee euh, yu maas mbuub bi maas mbuub moom boo ko waxee maas mbuub maa ngi lay nuyu bu baax baax. <laughs> maa koy nuyu moom it bu baax maas mbuub lay nuyu euh, euh, borom ex-Pastef fa gën a fort Pastef bi donc man loolu du samay kàddu kàddu yu ma maas mbuub la en tout cas mu ngi noonu jëriñ Ndiassé. ma mm-hmm. bàyyi la nga tàggatoo rek en attendant. dem leen ci feneen fii ci beneen direct bi bu Sénégal 7 di ngeen mën ñu suivre en direct la xew ca Cour euh, suprême yëpp ndax dama bëggoon ànd ak yéen ak Jëwriñ Ndiassé <laughs> mais dafa am yeneen i euh, émission yu war a ñëw moo tax donc on est obligé Jëwriñ jaasee suñu xarit yi ñu ñu ñu tàkkatoog ñoom. waaw mais di sant di gërëm rek di euh, ñaan yàlla rek juge yi yàlla bàyyi leen ak seen sago ba ñu nekk ay juge yu équitable. Mm-hmm. waaw parce que dëkk bi li fi rafle mooy sincérité ak équitabilité quoi. moo fi rafle quoi ay juges yu tëddee njaaxaanaay ñoo xamante ne lu ñuy wax dañuy xool seen aqlaay taala quoi. Mm-hmm. loolu la ñuy ñaan quoi. Mm-hmm. ne bon ñu ngi xaar rek ak sunu nooyub fii ba suba. Mm-hmm. ba xam. xool nu muy demee xool nu muy demee. quoi mais jëwriñ jëwriñ euh, dimanche da ngay ñëw bonsoir Sénégal de. dimanche wala samedi. waa Sénégal bonsoir nee na mu nañ la. ah bon. yóbbante la te yóbbante àq la <laughs> des na ci yow rek man wow xam nga. waa waa waa waa géwël. wax leen du moom la yow la non <laughs> wax leen du Diori Ndiassé de ci yow la quoi man moom <laughs> man foofu yóbbu rek. laay dem quoi ah am na émission yu mucc ayib suba incha dina dinañ def ak yéen spécial du matin jusqu'au mm-hmm. soir. waaw àndandoo ceeg ci mm-hmm. émission yu. yu dal ki may laaj Serigne Modou Assa Mbacké incha allah Serigne bi dina ñëw suba. ñu waxtaanee ak moom réew mi mm-hmm. tolluwaay bi ah, surtout lii nii di xew actuellement mais en attendant samedi jàpp leen rendez-vous bu mag a mag a mat c'est à partir de vingt et une heures incha allah ci guddi ah fii ci réew bu Sénégal yen ñi nekk biti réew nag xaw ma décalage bi ci yenn ci réew yi mais daal neuf la fii ci Sénégal ah dañuy def émission bu mag bu ñuy wax géewal géwal ah suma gars yu bëri dinañ ci nekk donc bu leen ko kenn euh, waaw bu ko kenn wute dimanche incha allah à partir de vingt heures mhm. beneen émission bu mag a mag a mag ah ñoom waa Jules Ferry ñoom bonsoir Sénégal lañ ko tuddee ah ñii géewal ñii bonsoir Sénégal ñoom saa wolof la ak ñoom Pape Moussa Sow waaw ñoom Al Amin Dramé ñoom Pape Moussa ak ñoom Pape Moussa Sow ah Cheikh Ousmane Touré ñoom ñëpp dañuy ñëw moo tax samedi la vingt une heure dimanche vingt heure incha allah mais en attendant suba ñu ñëwaat ak yéen ci ay émissions yu mucc mucc mucc ayib parce que bat Badji dina ñëw bu vingt heure jotee ah, ci émission bu mag boobu ñuy wax entre elles soxna yi ñooy ñëw euh, ñoom mm-hmm. ànd ci Penda Badji Ulay Maane Mami Samb ñoom ak seen i jigéen am na nag nee nañu invité bu mag a mag a mag soxna bu war a ñëw ci émission bi ah jombul xam naa mën naa jàpp Mimi Touré mën naa jàpp Maymouna Bousso mën naa jàpp ah professeur Amsatou Sow Sidibé Anta Babacar Ngom pourquoi pas parce que entre elles ñoom la ñu wax quoi bon man daal nee nañ ma ma wax leen loolu donc vendredi 20h samedi. 21 heures dimanche 20 heures incha allah émission yu mag a mag a mag waaye laataa boobee tamit dañuy wéy di ànd ak yéen jëwriñ Ndiass jërëjëf. jërëjëf. jaajëf cheikh bi jibi incha allah alors mesdames messieurs dem leen ci <laughs> beneen euh, direct bi ngeen fekk suñuy ndaw Pape Waly Dione Bichantine ah ñoom ñu ngi en direct cour suprême di leen jox lépp ngir mën ngeen gën koo xam ah, dara du leen ump incha allah <laughs> ca la xew ca cour suprême la ngi lay jaajëfal moom ak Fallou Mbaye donc euh, on se donne ma leen di jox rendez-vous suba incha allah s'il plaît au bon Dieu ah, mais d'ici là restez branchés scotchés jamais sur Sénégal 7 point com jaa ngeen jëf merci au revoir